leen lennam nee na xoolu leen lennam ndax seenu gis sëriñ bi ci moom nee ndax seenu gis sëriñ bi ci moom moom it mu farlu nee na moom it mu farlu di leen wan sëriñ bi ci jëmmam di leen wan sëriñ bi ci jëmmam di ko di ko wuutu ci barab yi nee na di ko wuutu ci barab yi di ko wuutu ci ay kàddoom nee di ko wuutu ci ay kàddoom kon mooy bunt bi nee na kon mooy bunt bi nuyoo bi ak siyaar bi nee na nuyoo bi ak siyaar bi ñu ngi ko koy jébbal nee na ko koy jébbal mu jottali ko taalibe yëpp. nee na mu jottali ko taalibe yëpp. góor ñi. góor ñi. ak bokki soxna yi. ak bokki soxna yi. kum ci mën a doon rek. nee na kum ci mën a doon rek. ñu ngi lay jottali ngërëm loolu. nee na ñu ngi lay jottali ngërëm loolu. laataa may jóg. nee na laataa may jóg. ñaan na ay yooni yoon sax. nee na ñaan na ma ay yooni yoon sax. ne ma ñu ngi nii di départ. ne ma ñi ñu ngi nii di départ. ma xamal ko ne ko dañoo amaat ndigal noonu. nee na ma xamal ko ne dañoo amaan digal noonu. Euh, jëm ca. jëm ca. Euh, kon xam naa bu mënee nekk. nee na kon xam naa bu mënee nekk. ngeen néggandiku ñu Cees. ngeen néggandiku ñu Cees. ñu fekk leen fa. ñu fekk leen fa. ndax oto bi yor euh, liggéey bi. nee na ndax oto bi yor liggéey bi. muy xar yi ñu waroon a yóbbu. muy xar yi ñu waroon a yóbbu. camion bi ko yab. camion bi ko yab. mi ngi gaare fii ci wetu hôpital bi. mi ngi gaare fii ci wetu hôpital bi. na suuf see tax mënta ñëw ba nii. suuf see tax mënta ñëw ba nii. Euh, te ginnaaw bëgg nañ mu daal di tege ci loxob kilifa gi ñu ko sant. nee na ginnaaw bëgg nañ mu tege ci loxob kilifa gi ñu ko sant. ñu jotandoo ñun ñëpp ci cant ga. nee na ñu jotandoo ñun ñëpp ci cant ga. ak ñaan ga. ak ñaan ga. ak ngërëm la. ak ngërëm la. looloo tax ma ne ngeen néeg rek ma fekk leen Cees. nee na loolu rek moo tax mu ne ngeen néeg rek mu fekk leen Cees. kon yéen it. kon yéen it. loolee seenub liggéey nga ca nee na seenub liggéey ma nga ca seen taxawaaya nga ca seen taxawaaya nga ca seenu ñaq nga ci seenu ñaq nga ci ngir ngir bëgg ngërëmal yàlla rek nee ngir bëgg ngërëmul yàlla rek te bëgg koo jaay jaar ci waay yàlla nee na te bëgg koo jaar ci waay yàlla yàlla daa am ay gaay yi nee na yàlla am na ay gaay am am nay xarit am na ay xarit am nay soppe am na ay soppe ku ku ku bëgg dara ci moom. nee na ku bëgg dara ci moom. jaar ko ci ñooñu. jaar ko ci ñooñu. yàlla mën na la koo dimbalee. nee na yàlla mën na la koo dimbalee. moo tax ñu di ko di ko jaar ci gaayam yooyu. nee na moo tax ñu di ko jaar ci gaayam yooyu. ndax li li ñuy wër. nee na ndax li ñuy wër. ci bi. ci àll bi. bu buñ ko gisoon ci kër yi. nee na buñ ko gisoon ci kër yi. du jar tànku di ko seeti ci àll bi. nee na du jar tànku di ko seeti ci àll bi. ñàkk koo am ci kër gi rek. ñàkk ko am ci kër gi rek. moo waral wër bi. nee na moo waral wër bi. waaye kuy wër. nee na waaye kuy wër. ba dajeeg Cerno Birahim. ba dajeeg Cerno Birahim. àll la boo xam ne. nee àll la boo xam ne. ñàkkut dara. nee na ñàkkul dara. boo fa xasee dugg. boo fa xasee dugg. dootoo ko génn. nee na dootoo ko génn. ndax li ngay wër. ndax li ngay wër. ak li ngay wut. ak li ngay wut. bu dee garaba. nee na bu dee ay garab la. yàlla saxal na ko ci àll boobu. nee na yàlla saxal na ko ci àll boobu. bu dee meññeef. bu dee ay meññeef. bu bu ndoxum naan. nee na bu dee ndoxum naan. lu mu mën a doon rek. lu mu mën a doon rek. li nga yittewoo lépp. li nga yittewoo lépp. yàlla may na la ko nga fekk ko Cerno Birahim. nee na yàlla may na la ko nga fekk ko Cerno Birahim. yàlla def yàlla def nag. liggéeyal. ñu di ko liggéeyal. di ko liggéeyal. di ko liggéeyal. ba egsi ci jëmm jii nga xam ne. ba egsi ci jëmm jii nga xam ne. na wuñ ne. nee na nattable wuñ ne jenn jëmm nee na jenn jëmm ji rek la du ñaari jëmm nee na du ñaari jëmm du ñetti jëmm du ñetti jëmm du ñeenti jëmm nee na du ñeenti jëmm yàlla miinloo ko liggéey bi nee yàlla miinloo ko liggéey bi miin loo liggéey bi sëriñ bi nee na miin liggéey bi sëriñ bi sëriñ bi miin seenub liggéey nee na sëriñ bi miin seenub liggéey te booba sologul mbubbum Cerno Birahim nee na te booba sologul mbubbum Cerno Birahim yàlla def yàlla def yàlla solal ko mbubb moomee yàlla solal ko mbu mu far di jëmm ja nee na mu far di jëmm ja di sunu bunt nag nee na di sunu buntu nag yàlla may nu taw feex yi nee na yàlla may nu taw feex yi nuy liggéey ci ginnaaw baay Cheikh nee na ñuy liggéey ci ginnaaw Baye Cheikh ba mu ñëw ba mu ñëw yeesalaat liggéey boobu nee na yeesalaat liggéey boobu beesalal nu ko beesalal nu ko kon nee na kon loole loolee dañ caa war a euh, teg sunu bakkan nee na dañ caa war a teg sunu bakkan takk sunu ndigg bu baax a baax takk sunu ndigg bu baax a baax xam ne moom te xam ne moom mbégteem mbégteem mooy sunu sas bu ngeen xoolee. nee na bu ngeen xoolee. bi liggéey bi tàbbee ci loxoom ak léegi. bi liggéey bi tàbbee ci loxoom ak léegi. dama mel ni ay dara sax. nee na dafa mel ni doonatul ay dara sax. xëccuma dara. nee na xëccul dara. ñoddiwuma dara. ñoddiwul dara. yëngutu yi ma daan def yu bari sax. nee na yëngutu yi ma daan def yu bari sax. da far teg yëpp. nee na far teg yëpp rek. ngir bañ a bëgg dara. nee na ngir bañ a bëgg dara. ci kanamam rek ci kanamam rek. mu mel ne dara ñoratuma. nee na mu mel ni dara ñoratuma. ba tax na. ba tax na ñu ñu bari ñi ma miin. nee na ñu bari ñi ma miin. boo moytu dañuy xaw a réer sax. nee na boo moytu dañuy xaw a réer sax. ndax ndax daam am lu ñu xamoon te. gisatuñ am lu xamoon te gisatuñ ko. muy eh, tal tal yëngu yi. muy tal yëngu yi ak yu baree bari. ak yu baree bari. manal jëwrin Modou mii nee na jëwrin Modou mii lu may dox lu may dox Thiès Thiès mook bokki taalibeem yi mook bokki taalibeem yi buñ ko déggee nee na ko déggee la ma ca bëgg la ma na ma ko mën a doxee na ma ko mën a doxee mën nañ koo doxee noonu nee na mën nañ koo doxee noonu te te te du moom rek nee na te du moom rek ay moodu yu baree bari lañ nee na ay Modou yu baree bari lañ dëkk Thiès dëkk Thiès boo demee Géejawaay nee na boo demee Géejawaay ay góor yu bari ay góor yu bari fa ne ay jëwrin yu ilimaan yu bari nee na ay jëwrin ilimaan yu bari eh, ay jëwrin alsaan yu bari ay jëwrin alsaan yu bari eh, daanaka barab bu ne nee na daanaka barab bu ne ne jafane jëwriñ ne am ay dara la am ay dara la moo xam ne moo xam ne loolu lañ doon ñaan nee na loolu lañ doon ñaan eh, bu ma mënoon a boolee ay dara yooyu yëpp nag nee bu ma mënoon a boole ay dara yooyu yëpp nag def leen ni ñuy defub ciment ak suuf def leen ni ñuy def ab ciment ak suuf dootuñu am sax ñoom nee na ñoom sax dootuñu am dama leen di tàpp rek nee na da leen di rek ñu doon benn birig benn yoon ñu doon benn birig benn yoon ma di ko liggéeyalee sëñ bi nee na ko ñi dégg loolu nee na kon ñi dégg loolu xam ne foofu laa jëm nee na te xam ne foofu la jëm te doxin woowu laa yor nee na te doxin woowu la yor bañ daw fekk si ma foofee nee bañ daw fekk si ma foofee alhamdulilahi rabbil alamin nee na alhamdulilahi rabbil alamin nee woon naa leen nag nee woon naa leen nag man dama bëri mbubbu man dama bari ay mbubb mbubb yu bëri yooyu nag nee na mbubb yu bëri yooyu nag bu ci kenn roy nee na bu ma ci kenn roy menn mi ngeen ma xamee nee na menn ngeen ma xamee muy jëfe ndigal yi muy jëfe ndigal yi ndigal yàlla yi ndigal yàlla bay bàyyi tere yi bàyyi tere yi kenn du ma ca seen kenn du ma ca seen lu ma leen digal jiitu leen ca nee na lu ma leen digal jiitu leen ca lu leen tere du ngeen ma ca gis lu ma leen tere du ma leen ca gis yéen sol leen bu moomu rek nee na yéen sol leen bu moomu rek nekk leen ci loolu rek leen ci rek man nag moom la ñuy wax ga gayndeg ñoloor goo xam ne nee man nag la ñuy wax gayndeg ñoloor goo xam ne bu ndigal ñëwee ñëwee moom mbubb mu ma mën a sol ngir jaar ci kawam rek danaa ko sol nee na mbubb a sol ngir jaar ci ko sol ba defee ko ni ko sëñ bi bëggee ba defee ko ko sëriñ bi bëggee waaye nag lépp daa yemut waaye nag lépp daa yemut kon nag nee kon nak nan farlu bu baax nan farlu bu baax nek ci ndigal yi nek ci ndigal yi bàyyi tere yi bàyyi tere yi nango jaamu yalla nango jaamu yalla ta delu ta delu wat ci mm, ci ca dex ga nak leg ta delu wat ci dex ga nag guppaat yere yi guppaat yere yi di dindi gakk yi dindi gakk yi e, fo tilim ji fo tilim ji e, ndax it doomu aadama nee ndax it doomu aadama non la bindo nee non la bindo legi legi legi mu mu fanaawu nee legi leg mu fanaawu ba jeex tak rek ba jeex tak rek leg leg mu baqaawu leg leg mu baqaawu day yéeg ak a wàcc rek. nee na day yéeg ak a wàcc rek. doomu aadama amel noonu. nee na doomu aadama moo mel noonu. waaye. nee na waaye. lu mën a xew rek. nee lu mën a xew rek. nañ delluwaat ci naanu bi rek. nee na nañ delluwaat ci naanu waay bi rek. bu loolu amee. nee na bu loolu taw feex rek kayam. taw feex rek kayam. murit boo seen. murit boo seen. xol ba. xol ba buy dox ci lëndëm buy dox ci ak lëndëm nii lamp bi mel nee na nii lamp bi mel gët yee ko na gët yee ko dut waaye xol ba nii lay niitee ay fa fu muy teg tànkam nee na waaye xol nii lay niitee fu teg ay tànkam tànk nag nee na tànk nag du yii ñu miin de nee na du yii ñu tànk yi góor yàlla yi doxee nee na tànk yi góor yàlla yi di doxee te leeru xol di ko niital te leeru xol di ko niital tànk yii de du tànk yi tànk yooya na tànk yooya bu xol bi amee leer nee na bu xol bi amee leer ba niital ko ba niital ko tank yooyu du wàcc yoon nee na yooyu du wàcc yoon wi kon nag. nee na kon nag nan farlu ci loolu. nan farlu ci loolu. addunaa ngi nii. addunaa ngi nii. moom rek la ñuy dàq. nee na moom rek la ñuy dàq. ba addunay tukki. nee na ba addunay tukki. kii dàq adduna du ko jot. kii dàq adduna du ko jot. kon kon kon lu jar coono bi. nee na kon lu jar coono bi. lu jar nal nal ji. lu jar nal nal ji. ku ci am loo teddee. nee na ku ci am loo teddee. am loo joxe addiya am loo joxe lu ne gàññi nee na lu ne gàññi euh, penc mu yàgg rek lay indil nee na mu yàgg rek la lay indil pencoo bu yàgg rek pencoo bu yàgg rek foo ko jëlee nee foo ko jëlee noo ko amee foo ko def foo ko def kon ku am ku am loo jamoo yàlla rek nee kon ku am loo jamoo yàlla rek loo sàmmee sa ngor loo sàmmee sa ngor doy na sëkk na doy na sëkk Macky Sall mii Macky Sall mii boo ko noon pëkk-pëkk boo ne ndax sa aajo faju na ne ko ndax sa aajo faju na mu ne fajoogul nee na mu ne fajoogul ay naal la feesee del ay naal la feesee dell lu muy xëcc te ñëwut la feesee dell nee na lu muy xëcc te ñëwut la feese del lu mu bëgg te la feesee dell lu mu bëgg te amu ko la feesee dell yow nee na te wax ak yow ci ñi gën a bari la ci réew mi la bok ci ñi gën a bari la ci réew mi ci la bokk waaye moo cëpp ak jaaxle nee na waaye moo cëpp jaaxle kon nag nee na kon nag nit ñi nit ñi rawatina nun nun taalibe yi nee na rawatina nun taalibe yi nañ bëgg sëriñ bi nañ sëriñ bi fonk sëriñ bi fonk sëriñ bi ne ci ndigal yi ne ci ndigal yi te kenn duñu gis ci tere yi nee na te kenn duñu gis ci tere yi te fu waay ne te fu waay nekk nekk sagub sa kilifa nekk sagub sa kilifa nekk tiitarub sa kilifa nekk tiitarub sa kilifa ndax ni ngeen di tiitaroo kilifa yi nee na ndax ni ngeen di kilifa yi nan dégguma ko ci lii naan dégguma ko ci lii gisuma ko ci lii gisuma ko ci kilifa gune nee na kilifa gune noonu la bëgg a déggee njabootam noonu la bëgg a déggee njabootam naan gisuma leen ci lii naan gisuma leen ci lii dégguma leen ci lii dégguma leen ci lii kon nag yéen it na kon nag yéen it bu ci li ngeen war ngeen nekkee ci li ngeen war a ne am fulla ja am fulla am fayda ja am fayda ja ndax taalibeb daaru nee na ndax taalibeb daaru bu ñàkk fayda bu ñàkk fayda mbaa fulla fulla bëriwul lu ma ko gis nee na bëriwul lu ma ko gis bëriwul lu yow sax nee na ñii jëflante ak sax buñ ne buñ ne taalibeb cerno nga nee dañuy dañuy dolli cër bi ñu lay jox. nee na dañuy dolli cër bi ñu lay jox. ndax benn. ndax benn danañ xam ne mënuñu la ci diine. danañ xam ne mënuñ la ci mënuñ la ci diine. mënuñu la ci jaamu. mënuñ la ci ak jaamu. duñ la dàq liggéey. duñ la dàqal liggéey duñ la ëpp fulla duñ la ëpp fulla duñ la ëpp fayda duñ la ëpp fayda ta ta ta lu dëgg génn nee na te lu dëgg génn nga génn ca nee na nga génn ca fu dëgg fu dëgg nga fa nga fa kon farlu leen bu baax a baax nee na kon farlu leen lingenam baax a baax li ngeen am nee na li ngeen am na leen yàlla may ngeen xam ko nee na na leen yàlla may ngeen xam ko bu ngeen ko xamee nee na bu ngeen ko xamee téye ko sax bu ngeen ko amut nee na téye ko sax bu ngeen ko amut na leen borom bi roof kattan nee na na leen borom bi roof kattan ba ngeen mën koo téye bu baax a baax ba ngeen mën koo téye bu baax a baax euh, loolu noo ngi leen koy ñaanal bu baax a baax nee Moodu jëwrin Moodu yeggee ma seenu yóbbante nee na ko seenu yóbbante euh, jox na jëwrin Xaadim mi addee ji tamit nee na jox na jëwrin Xaadim mi ji tamit ba yegsi na loolu rek mooy yoon wi nee loolu rek mooy yoon wi euh, état yi nee na état yi dañuy fay impôt nee na dañuy fay impôt liñ leen di jox liñ leen di jox ci hôpital lañ ñu koy defal nee na ci hôpital yi lañ ñu koy defal ñu koy fajoo ñu ko fajoo wala ñu defar ci yoon wala ñu defar ci aw yoon ñu di ci jaar ñu di ci jaar foofa la impôt ba jëm nee na foofa la ba jëm sëriñ bi nag sëriñ bi nag lii ñu ko jox lii ñu ko jox aw jiwula aw jiwula la tooba gu barkeel nee na tooba gu barkeel lay seet lay seet defal la ko fa defal la ko ca garab lay doon lay doon boo xiifee lekk ci. nee na boo xiifee lekk ci. day day am ndox. nee na am ndox. garab yu am ndox a ngi fi. garab yu am ndox a ngi fi. boo maree naan ci. boo maree naan ci. boo pee faju ca. nee na boo woppee faju ca. boo sonnee noppaliku ca. boo sonnee noppaliku ca. boo bëggee dëkkuwaay wut ko ca. nee na boo bëggee dëkkuwaay wut ko ca. tooba gu barkeel. nee na tooba gu barkeel. boo ci xamee genn. boo ci xamee genn. jërul saw jiw di bari. nee na jërul sew jiw di bari. jëlal lépp rek xëpp ci genn tooba gi. jëlal lépp rek xëpp ci genn tooba gi. tool da nga koy am. nee tool da nga koy wóolu genn tooba gi. nee na ñàkk a wóolu génn tooba gi moo tax ngay xotti tool bi fu ne nga sànni fa dara moo tax ngay xotti tool bi fu ne nga sànni fa dara waaye boo wóolu genn tooba gi na waaye boo wóolu woon genn tooba gi ba xam ne li nga ci def du yàqu ba xam ne li nga ci def du yàqu gas suul ko benn yoon a gën a noppale nee na suul ko benn yoon moo gën a noppale bu góob jotee bu góob jotee benn barab ngay góobee benn barab ngay góobee mbaa nga fa mbaa nga déqee fa sëñ Tuubaa nag genn tooba gu barkeel la sëriñ Tuubaa genn tooba gu barkeel la jërul wër tool bi nee na jërul wër tool bi waqil fi nga toog rek waqil fi nga toog rek suul suul wan ginnaaw. wan ginnaaw. mooy sebbulu. nee na mooy sebbulu. moo ciy taw. moo ciy taw moo koy saxal. moo koy saxal. moo koy barkeel. moo koy barkeelal. loolu nag. nee na loolu nag ameewu ko fenn. nee na ameewu ko fenn. lu dul am gi mu am boromam rek. lu dul am gi mu am boromam rek. Serigne Touba am gi mu am boromam. Serigne Touba am gi mu am boromam. ci hadisul qudsi yi boobee. ci hadisul qudsi yi boobee. yàlla ne. yàlla ne jaam bi damay jaamu. jaam bi damay jaamu. ci naafila. ci naafila. ba yegg ci man. ba yegg ci man. foo xam ne. foo xam ne bëtam. bëtam mooy sama bët. mooy sama bët. noppam. noppam mooy sama nopp. mooy sama nopp loxoom. loxoom sama loxo. di sama loxo. tànkam. tànkam sama sama tànk. di sama tànk. bu waxee maa wax. nee na bu waxee maa wax. ginnaaw ab jaam day yegg foofu. nee na ab jaam day yegg foofee. ci naafi la. ci naafi la. sëñ Touba man ñëpp ci naafi la. nee na Serigne moom man ñëpp ci naafi la. ñaari rakkaay biroom Ndar. nee na ñaari rakkay birom ndar. ak feneen ak feneen. feneen ak feneen. ku ku tardé wut naa fi la. nee na ku tardé wut naa fi la. doo tardé farata. nee na doo tardé farata. moonu man ci farata. nee na moonu man ci farata. moonu man ci naafile moo moonu man ci naafile yi. daa mujj nag. daa mujj nag. di tànku boromam. di tànku boromam. di loxo boromam. di loxo boromam. di bëtam. di bëtam. di noppam. di noppam. di làmmiñam. di làmmiñam. day addu. day addu. kàddug boromam. kàddug boromam. day dégg. day dégg. moy nopp boromam moy nopp boromam day dox day dox ci tànki boromam ci tànki boromam day xol day xol ci gëti boromam ci gëti boromam lol nak ab hadithul qudsi la neena lol nak ab hadithul qudsi la mo tambale man adani waliyan mo tambale kep ku nono sama waliyu neena mo tambale kep ku nono sama waliyu faqad azantuhu bil harb mu yàlla mu ku nono sama sama kilifa yi rek déclaré naa la guerre. nee na yàlla nee na ku noonoo sama kilifa yi rek déclaré naa la guerre. mu ñi nga xam ne rek ñoom laa jox responsabilité yi. nee na mooy ñi nga xam ne rek ñoom laa jox responsabilité yi. ak wàccuwaay yi. ak wàccuwaay yi. sëñ Tuubaa nag sëñ Touba nag. Euh, day njiit ca ñooñee. nee na day njiit ca ñooñee. moom ku dul yonent bi rek. nee moom ku dul yonent bi rek. newul fi kanamam. newul fi kanamam. kon nag alhamdulilah rabbil alamin. nee na kon nag kon nag alhamdulilah rabbil kon nag farlu leen. nee na kon nag farlu leen. amu leen lu dul daara ji. amu leen lu dul daara ji. amu leen lu dul liggéey bi. amu leen lu dul liggéey bi. adduna mi. adduna mi daq rek. làq rek Dak rek dàq rek waaye joxoñ ngay mujjee nee na waaye joxoñ rek ngay mujjee doo ko jot mukk doo ko jot mukk da ngay dàq ba sa doole jeex da ngay dàq ba sa doole jeex ki lépp doole dab la ki lépp doole dab la di laaj fu jaar di laaj fan la jaar nga naan ma nga nee rek nga naan ko ma nga nee rek kookee tamit kookee tamit dooleem day jeex rek dooleem day jeex rek mu joxoñaat ko doomam mu joxoñaat ko doomam kenn du dab kenn du dab musuma dég ku ko dab. nee na mës a dégg ku ko dab. Daawuda. Daawuda yonent la woon. yonent la woon. yalla yàlla joxoon ko nguur. yàlla joxoon ko nguur. waaye boo doon wër njeexiti nguuram. nee na waaye boo doon wër njeexiti nguuram. da nga sonn de. nee na da nga sonn de. Suleymaan. Suleymaan. yilifoon na adduna de. yilifoon na adduna de. waaye boo doon wëraat ay ay ndesiti alalam. nee na boo doon wëraat ay ndesiti alalam. da nga sori de. nee na sori de. ay yeneen i buur yu dul ñoom. ak yeneen i buur yu dul ñoom. yoo xam ne. yoo xam ne. Eh, seen i caabi. seen i caabi. man man nga koo sëf gileem. man nga koo sëf gileem. te tey jii. te tey jii deseetuñ benn magasin ci àdduna deseetuñ benn magasin ci àdduna kon kon gànjar gi gànjar gi li dul yàqu li dul yàqu mooy jëf ju baax mooy jëf ju baax nekk leen ci rek. nee na nekk leen ci rek nekk leen ci jëf ju baax rek. nekk leen ci jëf ju baax. dama koy wax murid yi jamono bu ne. nee na dama koy wax murid yi jamono bu ne. sëñ Muntaxa bu waxee ba yàgg. nee na sëñ Muntaxa bu waxee ba yàgg. ne nekk leen ci rek. ne nekk leen ci rek. Eh, dama ne moom li muy yëg sax. nee na moom li muy yëg sax. amul vocabulaire yi. nee na amul vocabulaire yi. sëñ Muntaxa. sëñ Muntaxa li mu bëgg a wax. nee na li mu bëgg a wax. nit ñi di ko dégg. nit ñi di ko dégg. xol la koy waxee. xol la koy waxee. nit ñi di ko déggee xol. nit ñi di ko déggee xol. waaye du ko waxee lammiñ mukk. nee na waaye du ko waxee lammiñ mukk. ndax baat yi ndax baat bad moom la yorut nee na la yorut ko mën a waxee baat ko mën a waxee ba nit ñi dégg ko ba nit ñi dégg ko yoru ko hamne na yoru ko aikadom, nag da koy junj rek nee na waaye da koy rek ku ko ku ko ëmb na lu yiw ëmb na lu yiw ay ay rek rek di Serigne Abbas nee ki Serigne Abbas ñu ñaan yàlla mu yàgg te wér nee na ñu ñaan mu te rek moom it rek kenn mësu koo xam ci lu dul jaamu yàlla. nee na kenn mësu koo xam ci lu dul jaamu yàlla. jàpp jàpp njàmburam. ak njàmburam. kenn mësu mësu koo xam ci lenn lu lii. nee na kenn mësu koo xam ci lenn lu dul lii. te it. te it. bokk ci ñi nga xam ne. nee na bokk ci ñi nga xam ne. bu ne woon tay la. bu ne woon tay la muy tay. muy tay. bu ne suba la. bu nee suba muy suba. muy suba. ba noppi mel ne du moom. ba noppi mel ne du moom. bu leen yàlla dimbalee nag. nee na yàlla dimbalee nag. ah bañ demee nii ñu demee ci moom. nee na bañ demee nii ñu demee ci moom. nañ nañ téye de. nee na nañ téye de. borom daaru newoon na. borom daaru newoon na. boo amee saw nag. boo amee saw nag. mu am doom. mu am doom. nee na góorgóorlul gaaw rat. nee na góorgóorlul gaaw rat. ndax lee mu feral. ndax lee mu feral. kon nag nañ farlu. nee na nañ kon nag nañ farlu. ku ci amu nag. ku ci amu nag. mu am doom. mu am doom. gaawal rat. nee na gaawal rat. jamono bi doom ji namp. nee na jamono ji doom ji namp. booba lay am meew. booba lay am meew. bu nampalatut. bu nampalatut. duutu am meew. dootul am meew. kon nag rat rek. nee na kon nag rat rek. nañ farlu. nañ farlu. nekk ci lu baax rek. nekk ci lu baax rek. dee ngi nii. dee ngi nii. ne këtt ne jonn. ne këtt ne jonn. xàmmewul gone. xàmmewul gone. xamul mag. xamul mag xamul kuy doog a juddu xamul kuy doog a juddu xamul kuy doog a takk soxna xamul kuy doog a takk soxna xamul soxna suñuy doog a takk xamul soxna suñuy doog a takk xamul kuy doog a sanc kër xamul kuy doog a sanc kër xamul xamul kuy doog a jënd kër xamul kuy doog a jënd kër yooyu ràññewu ko moom nee na yooyu moom ràññewu ko yaati baxtatan rek yaati baxtatan rek moom day ñëw rek ci mbetteel nee na moom day ñëw ci mbetteel rek moo tax ñi yeewu nee na moo tax ñi yeewu di góor yàlla yi di góor yàlla yi xam adduna xam adduna meloom xam ni mu waree yore. ak ni muy ni ak ni muy béppee nit. ak ni mu koy daaneele. ak ni mu koy daaneele. moo tax ñoom ñu xam niñ ko jàppee. nee na moo tax ñoom ñu xam niñ ko jàppee. ak niñ koy jëfandikoo. ak niñ koy jëfandikoo. du leen war mukk. nee na du leen war mukk. du leen daaneel mukk. du leen daaneel mukk. bañ mu daaneel leen nag. bañ mu daaneel leen nag. bañ mu lor leen. bañ mu lor leen. moo tax ngeen ànd ak ku ko xam. nee na moo tax ngeen ànd ak ku ko xam. sëriñ bi daa xam adduna. sëriñ bi daa xam adduna. axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan. axastu min duniyaa usaadalil jinaan waaw yàllaa ko jox moom mu maîtriser adduna ba di fi jëlee ab yobëlam nee na yàlla moo ko jox mu maîtriser adduna ba di fi jëlee ab yóbbalam kon nag nee na kon buñ toppee ci ginnaawam rek buñ toppee ci ginnaawam rek nekk ci njàngaleem nekk ci am njàngaleem danañ maîtriser adduna danañ maîtriser adduna ba ñi muy war duñ ci bokk ba ñi muy war duñ ci bokk bu dee ab taar bu dee ab taar ñaata jongoma ñaata jongoma la armée li lekk la armée li lekk kenn xamul nu mu toll nee na kenn xamul nu mu toll Bude wursak, bude wursak. Nyata borom alal. nyata borom alal. la armée li lek la armée li lek bu katan kattan. nee katan ñaata borom dole ñaata borom dole la armée li lek la armée li lek bude sañ-sañ. bu sañ-sañ. ñaata borom alal. nyata borom sañ-sañ. borom sañ-sañ. borom sañ-sañ mom la mom la armée lek mom la armée li lek bu barké barke. barké ñaata borom barke. ñaata borom barke. la armée li lek la armée li lek mi ngi ngang rek. nee mi ngi ngang rek. te gimiñ gudu fess te gimiñ gudu fess nekk ci lu baax rek. nee na nekk ci lu baax rek. nekk ci lu baax rek moo solo. nekk ci lu baax rek moo am solo. waaw kon nag nañ farlu. nee na kon nag nañ farlu. muy soxna yi. muy soxna yi. muy góor yàlla yi. muy góor yàlla yi. leen lu dul daara ji. amul leen lu dul daara ji. mu mooy dund. nee na mooy dund. yor seenub dund. yor seenub dund. wet gi may waxee na xam ngeen ko. nee na wet gi may waxee nag xam ngeen ko. bu bu rek. bu dundul rek. seenug dund jeex. nee na seenug dund jeex. daje gi ngeen di daje. daje gi ngeen di daje. waruñoo daje nii rek. nee na waruñoo daje nii rek. naan kafe naan café ku ne dem. ku dem daa am luñ fi war a jëlee. daa am luñ fi war a jëlee. yóbbaale ko ca kër ya. yóbbaale ko ca kër ya. mu yokk sunug jaamu. mu yokk sunug jaamu. yokk suñuy naafi la. yokk suñu naafi la. yokk suñu bëgg lu baax. yokk suñu bëgg lu baax. yokk sunug taalibe. yokk sunug taalibe. yokk sunug yiw. yokk sunug yokk suñu rafet jiko rootum ayu lay doon. nee na rootum ayu doon. ku farlu. ku farlu di nga am lu fees sa ndaa. di nga am lu fees sa ndaa. doo mar ci diggante bi. doo mar ci diggante bi ku ku farluwut benn yoon ngay naan. nee na benn yoon ngay naan. benn yoon. benn yoon man de lu la feeg bis biy dellu si. man lu la feeg biy dellu si. kon da ngay ni root. kon da ngay ni root soti ca ndaya soti ca ndaya diko jefandiko diko jefandiko bu bis bi dellu si bu bis bi dellu si du fekk sax ndox ma jeexagu neena du fekk sax ndox ma jeexagu ngeen yaat ndala ngeen yaat ndala lol nak liñ ci jublu neena lol nak liñ ci jublu dara dara daayira daayira lum ci mën don lum ci man di don da war di doli sa gem yalla da war di doli sa gem yalla doli sa ragal yalla doli sa ragal yalla doli sa talibé doli sa talibé doli sa yité doli sa yité doli sa bëgg yalla doli sa bëgg yalla budul li neena budul xawaare dong lay do xawaare dong lay do ta wessu ngeen ko neena ta weesu ngeen ko. kon nag. kon nag dellu leen ci durus bi. dellu leen ci durus bi. dellu leen ci kurus yi. dellu leen ci kurus yi. de dellu leen ci jataay yu guddi dellu leen ci jataay yu guddi yi. nelaw yu bari yi. nelaw yu bari ginaar yi sax mën nañ ko. nee ginaar yi sax man nañ ko fii may wax ak yow. fii may wax ak yow boo moytuwul. boo moytuwul doo dégg gu sabati. doo dégg gu sabati. lu dul fajar. lu dul fajar tëddi nañ yàgg na. tëddi bu yàgg. kon nelaw yu bari moom nee na kon nelaw yu bari moom sëñ ne newoon nañ ko bàyyeeg euh, ginaar yi rek sëñ Tuubaa newoon na nañ ko bàyyeeg ginaar yi rek ak ak ya ca des ak ca des euh, wala ñu xaaree ko bàmmeel wala ñu xaaree ko bàmmeel na bàmmeel moom bàmmeel moom ku fa tëdd ku fa tëdd da nelaw ba doyal da nga nelaw ba doyal fii nag fii nag yëngutu rek la yëngutu rek la bi nag yëngutu bi dara ëpp ci maanaa dara ci maanaa jaamu yàlla jaamu yàlla lu dul lii lu dul lii kattan gi kattan gi leneen a koy jël rek leneen a koy jël rek xoolal ñi fooyee seenu ndaw. nee na xoolal ñi fooyee seenu ndaw. dem ba nekk ay magi jëmm. dem ba nekk ay magi jëmm. yàlla xañ leen kàttan gi. yàlla xañ leen kàttan gi. taxaw julli mënatuñ ko. taxaw julli mënatuñ ko. te fii may wax ak yow. nee na te fii may wax ak yow. alal dañ doon dàq. alal dañ doon dàq. am nañ ko. am nañ ko waaye boo leen ci toggalee genn ginaar sax du jeex. nee na waaye boo leen ci toggalee genn ginaar sax du jeex. benn nen sax. benn nen sax boo ko xoolee boo ko xoolee benn xaaj bi rek lañ mën a jëfandikoo benn xaaj bi rek mën a jëfandikoo te adduna rek lañ doon wut nee rek lañ doon wut loo fi yàgg yàgg yàgg loo fi yàgg yàgg yàgg da fi liggéey loodul man dara da fi liggéey loodul man dara da ceeb dana jar sa xaalis ceeb dana jar sa xaalis ñu togg ko ci sa kër ñu togg ko ci sa kër yàq ko yàq ko doo ci man dara nee na doo ci man dara nda nda sa xaalis jar ndawal sa xaalis jarum ndawal ñu togg ko ci kër gi ñu togg ko ci kër gi doo ci man dara doo ci man dara ana diw ana diw fekk mi ngi sawet fekk mi ngi sawet ku ne di nga ci jaar boo fi yàggee ku ne di nga ci jaar boo fi yàggee ndax adduna moom ndax moom gàtt na gàtt na te nit ko gën a gàtt te nit a ko gën a gàtt yow guddoo yow guddoo ndax buñ la fi bàyyi woon tamit ndax buñ la fi bàyyi woon tamit sa kàttan day wàññiku sa kàttan day wàññiku xoola ci sa maam nee na xoola sa maam xoolal sa yaay xoolal sa yaay lu mu fi gën a yàgg rek lu fi gën a yàgg rek kattan gi day gën a wàññi kattan gi di gën a wàññiku amul ku fi ne amul ku fii ne ku dul yàlla ku dul yàlla kattanam di dolliku kattanam di dolliku day wàññi ko rek day wàññi rek da gën a tële da gën a tële da ngay gën a ñàkk man da ngay a ñàkk man loo gën a xëy nag gën a jege dee loo gën a xëy nag gën a jege dee te mënoo koo daw te mënoo koo daw dee kenn mënu ko wutalu xel nee na dee kenn mënu ko wutalu xel kenn du ko wutal pexe nee na kenn du ko wutal pexe bu jotee bu jotee dee rek de rek pexe fexe amut kon nag nekk ci lu baax nee na kon nag nekk ci lu baax ba mu fekk la ca ba mu fekk la ca daa gën lépp daa gën lépp kon nag farlu leen nee na kon nag farlu leen eh, li ma munut nee na munut sama digganteegub taalibe sama digganteegub taalibe ginnaaw munu leen a yor sama njël nee na munu leen a yor sama njël te bu ngeen ko yoroon jaralu leen ma ko te bu ngeen ko yoroon jaralu leen ma ko yoru leen sama dund yoru leen sama dund yoru leen sama nos yoru leen sama nos bu ñu toogee nee na bu ñu toogee bu leen waxut lu leen jariñ bu ma leen waxut lu leen jariñ naxante lay doon. nee na ay gone. te kaddu gii ngeen mës di dégg. nee na te kaddu gii ngeen mës di dégg. moom ngeen miin. moom ngeen miin. moom ngeen xam. moom ngeen xam. te li ma wér te nee na te li ma wér te wóor. donga yi. donga yi mën nañoo sukk de. mën nañoo sukk de waaye seen xeel yi sukkut. nee na waaye seen xel yi sukkut. ñu leen mën a wax. luñ leen mën a wax. bu ngeen yootoo seen i bunt. bu ngeen yootoo seen i bunt. da ngeen ci xalaat. nee di ngeen ci xalaat. kon nag. kon nag dañ leen wax loo xam ne. dañ leen di wax loo xam ne. même xelum noon bi sax bu leen dikkaloon. nee na même xelum noon bi sax bu leen dikkaloon. muy ki ñuy wax seytaan. nee na muy ki ñuy wax seytaan. fu mu mën a jaar. nee na fu mu mën a jaar. du jàll. nee na du jàll. day xam ne sëñ bi digle na li mu war a digle. day xam ne sëriñ bi digle na li mu war a digle. li mu li mu war a na a aaye na ko. mu war a li mu war a digle mooy digle yàlla yi. mooy digle digali yàlla yi. li mu war a tere. li mu war a tere mooy li yàlla tere. mooy li yàlla tere rek. bëggul lu dul li yàlla bëgg. nee na bëggul lu dul li bëgg. santaane wut lu dul lim santaane. santaane wut lu dul lim santaane. kon nag farlu leen. kon nag farlu leen. ñi yor liggéey. nee na yor liggéey. nañ ko jàpp. nañ ko jàpp fonk ko. fonk ko ñi toll ci jàng. ñi toll ci jàng. nañ ko jàpp. nañ ko jàpp fonk ko. ko. yor ay néegi sëy. nee na ñi yor néegi sëy. nañ góorgóorlu ci sëy yi. nañ góorgóorlu ci sëy fonk seeni borom kër. fonk seeni borom kër. gàttal tànk. gàttal tànk. gàttalu làmmiñ. gàttalu làmmiñ. neex tontu. neexu tontu. góor ñi. góor ñi mën a muñ. mën muñ. yërëm soxna yi. yërëm soxna yi suturaal leen suturaal leen yor leen ñoom it te yàlla tax yor leen ñoom it te yàlla rek tax bañ leen ëpp doole wan leen ko bañ leen a ëpp doole wan leen ko koo yor koo yor suturaalal suturaalal yërëmal yërëmal yoral yoral ndax yor jigéen nee na ndax yor jigéen mu am nu mel mu am nu mel ba muy jógee kër ndayam ba muy kër ndeyam dugg say loxo dugg say loxo yàqu ba kenn mënatu koo xool yàqu ba kenn mënatu koo xool loolu du sagub góor loolu du góor di dugg di yuuxoo ka di dugg di yuuxoo ka ak a dóor toji boppaka toji boppaka loolu moom du fi murit nee na loolu du yëfi murit murit murit day nekk roy waay ci melo day nekk roy waay ci melo ci jëf ci jëf ak jëflente ak jëflente ak ci kàddoom ak ci kàddoom kon nag jërë ngeen jëf nee na kon nag jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw xam na li moom moom xam naa Pastef moo leen may lii. <laughs> nee na lii moom xam naa ne Pastef moo leen ko may. xalaatuma woon ne danaa fi def juróom minute. nee na xalaatuma woon ne dinaa fi def juróom minute. ndax man bu ma xasee ne ji ndigal moom. ndax man bu ma xasee ne ci ndigal. vitesse yu may daw. nee na vitesse yu may daw. moo raw vitesse su disque. moo raw vitesse su disque. disque yooyu di daggay weñ. disque yooyu di daggay weñ. boo ko xasee bës ba mu ba muy tourné nii. nee na boo ko xasee bés ba muy tourné nii. lu dox ci kanamam rek. lu dox ci kanamam rek. da koy dagg da koy dagg. waaw daanaka bi may ñëw di dugg ci kër gi sax gisuma leen nee na daanaka bi may ñëw di dugg ci kër gi sax gisuma leen waaye bi waxtaan wi tàmbalee rek nee na waaye bi waxtaan wi tàmbalee rek cofeel gi nee na cofeel gi diggante baay ak doom diggante baay ak doom diggante eh, eh, nit ak kum jaboote diggante nit ak kum jaboote ma mel ne ku fàtte sax nee na ma mel ni ku fàtte sax waaye fàttewu de maa ci ndigal li ba tey nee na waaye fàttewu ma de maa ngi ci ndigal li ba tey waaw cofeel googu yi dox ci yéen nee na cofeel googu di dox ci yéen mooy dox ci man nee na mooy dox ci man ginnaaw moom ngeen ma nuyoo nuyoo nee na moom ngeen ma nuyoo cofeel googu rek laa leen di fayee nee na cofeel googu